gaa yi jëmm ji ma taf nii bala maa ñëw ci Ahmed Cissé damay wax ci jëmm ji quoi muy Amady Badiane Badiane Badiane Sakura Waali Amady Badiane dama ko affiché tey pour jéggalu ko li fi jot a xew parce que Badiane nit ku baax la tey jii bu ma nekkee daan nii ba am fa accès su ma nekkee daan ba ñëpp di waxtaanee Adamo ba waali am fitu di ma way wala waali di wax ak man wala keneen ak keneen di wax ak man ma xam ci keneen a keneen jëmm ji moo tax Amady Badiane nit ku baax la barki Serigne Babacar Si man maa def erreur parce que maa jël ay audio génnee ko ñëw affiché ko wax ay wax topp sama xol bi di wax mais moom méritoowul loolu parce que li mu ma ji ëpp na loolu barki Serigne Babacar Si amadi li ma defal Wally ba muy jëfee gis Amady moo ma njëkk a defal vidéo mooy bi ma dugal Wally naan ma Amady nee na yaa fi nekk moo ma njëkk a defal vidéo ci Wally yónnee ma ko. wuy ma benn amadi Badiane moo dajale Ramadane bi yëpp ñoom ñëpp ñu teg ay sabar ay bonko di ma way man Adamo boos Dey Negri kon Amady Badiane waroon naa ko fayal leneen lu di leen ay audiom di ko teg wala may jël ay waxam di ko divulguer wala ma koy waxal naka su dul noonu loolu lay rëccu li may gën a rëccu sama àdduna bi loolu la. mooy maanaam li ma def Eumeudi Badiane te waruma ko koo def moom laay jéggalu nii quoi Eumeudi maa ngi lay jéggalu devant tous les sénégalais devant tous les sénégalais yi seetaan yépp baal ma àq maa lay jéggalu man nga baal ma àq parce que dama laa tooñ waaw parce que li ma la def nii waruma la ko woon a def parce que mérito woo ko Eumeudi da nga maa ji teraanga ji ma ngor senegale yii li may wax nii sama xol bi laa ko jibbee da ngeen a xamul sama diggante ak Eumeudi di fu daan dem tourné du ma jóg néegam fa laay nekk moom ak fàllu Benjamin moom lay àndal sama lépp la mais dama def erreur bu mag parce que li ma def nii waruma ko def moom laay jéggaloo Badiane Sakura Waly nit ku baax nga ku bëgg waali nga ku yàgg ci waali nga ku yàgg sonn ngay waali nga def nga lu ne ngir Ramadan maa ngi lay jéggalu di la baalu àq yàlla la yàlla defal jàmm may la gudd fan yow nit ku baax nga ëmbadi bu amee ku am fot man mii la mala togn mala jéggalu sama gana frère nga ñimay demandé nan tot sen ciot nday dindi sen demande yi retirer le fal ndayam képp ko defoon demande dugal ko sa tuunu nday limay wax daf ma ñor ci badian lay wax damay kat sen nday de waaw badian ma ngi lay jéggelu di balu ak ma ngi lay jéggelu amadi di balu ak ma ngi lay jéggelu di balu ak amadi ma ngi lay jéggelu di balu ak parce que lima la def ni wuruma la ko def amadi mérito wul lolu nit ñi taxu ñu may wax wala nit ñi taxu ñu ma lay jéggalu déedéet da nga koo méritoowul ndax man damaa xam li ma dund ak yow ak li nga ma defal yow bu ma ñëpp xamee Ramadane sa jëmm ji la ñëpp bu ma xamee Ramadane yow yaa ko waral di bu ma waali amee fit sax ba ñeme ma yow mii la yaa ma njëkk a envoyé vidéo waali mu may souhaité nii yow yaa dajale Ramadane gi yëpp teg leen ñuy bongo di sabar di way aadamo nga koy filmer di ma ko yónnee kon Amady yow waroon naa laa fayee leneen lu dul lii. erreur bu mag laa def sama àdduna maa ngi lay jéggalu di la baalu àq yàlla na yàlla may gudd fan may la wér léegi nag damay ñëw ci